yéen mbokk jullit yi daje yëpp mu taxa mi ngi leen di nuyu te di leen nagul seenub siyaare nuyoo bu nee mu ngi ci jiital kilifa adduna yi nga xam ne ñu ngi fi mu tam lu Antoine Diome ak ñi mu àndal ñëpp ba ca ña gën a ndaw ci bureau ya sëñ mi ngi leen jotal seenu cant eh, di ak cantam bu baax ki nga xam ne li ngeen def de xam na ko bu baax a baax. ndax boole ngeen ñett yoo xam ne lu am solo la ci nit muy seen jëmm ak seen ñaq ak seen waxtu lépp boole ngeen ko indi ko ngir sëriñ bi warmaale ko ko loolu muy leen di sant bu baax. Mhm. ñaan suñu borom mu doole leen taxawaay bu baax. jubale te doole barkeeli seen liggéey te lu koy mhm. nga xam ne fii ngeen nekk ah noo ngi leen di sant waaye itam war ngeen di sant yàlla <laughs> ndax ab teen la rek bu ñu roote kenn ku indi sa baat indi sa ndab. boo rootee ñu duyee la teen bi mu paju aaju moo ci ball kon ñun ñu ñu fi nekkee ni ngeen fi war a ñëwee yaatal nañ leen nag bu baax a baax a baax a baax dañaare nag ci dara sëñ bi lépp loo xam ne aaju woo ñëw te ñëw ko fi su moom defal leen ko boole ko mbindee ci dara seen bi di leen sant bu baax di rafetlu sant bu baax di ji gisit nag jëf yi nga xam ne jëf ngeen ko fii diggante ndox ak ak ak ak ak yoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu mu ngi ci Lamine Bachir mi dana leen ko leeralal ah di sant na ginnaaw bu loolu wéyee ginnaaw bu loolu dool nag di sant kilifa seen kilifa nga xam ne mooy leen yebal ndax mënoo leen yebal feneen téye waaye bu waaye am ngeen nag sañ su yéen seen bopp ngeen ñëw seen bopp ngir yéen yéen bëggal seen bopp li wut li la kon nag noonu la ñuy sant baax di ko di ko sant ci yebal si mi leen yebal di ko sant ci ndimbal yi nga xam ne taxawaay nga xam def na ko yëpp ñu ngi sant ginnaaw bi loolu la ñu suñu bokki bopp yi nga xam ne ñoom ñooy màggal te dara ñuy màggal si. sant na leen bu baax a baax seen taxawaay ndax ñoom it képp seen kattan lu ñu mën ci taxawaay ak jëf def nañ ko te fu nekk fu ne fu kër sëriñ nekk fu bokk yi fekk nañ ko fa ak seen taxawaay ak seen pas-pas ak seen bëgg ak seen doyloo kon loolu noonu lañ sant leen ñaar bu baax a baax. loolu ñëpp ñu dal ñu dellu maase ñaanal ki nga xam ne nag mooy Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ko gën koo ko jàmm ak tal ba mu gën a mën a ànd ak yéen ngeen nekk mu bokk nekk ci ginnaawam ñu liggéey liggéey mu jëm kanam jërë ngeen jëf tubaar ka sant nañ na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal bismillah adduna bi foo ay ne rek tàllalal amin amin na ñëpp tàllal amin Mbakke amin amin amin amin amin amin amin